Euh, merci beaucoup monsieur le président marie ngi madame la ministre de la justice monsieur le ministre auprès du ministre monsieur Samb monsieur le ministre du travail du mes chers collègues députés et di madame la ministre moment bi c'est un moment triste c'est un moment triste parce que nous sommes nous ngi ci biir salle bi di joxe suñuy position di wax suñuy mais actuellement sama xel dafa dem ci ñi nga xam ni dañoo boom seeni doom ñu ñàkk li nga ne nekk seen et que nous toog actuellement ci seeni salon du débat bi nga xam ni moom am tey jëm ci wàllum li nga parce que tey jàpp naa ni ñàkk doom ni mu méttee ak ni mu mel ci doomi aadama ak nit koo xam ne daf laa jege ku faatu lenn rek te allah kulli yàlla dañuy faatu mais lenn moo la mënoon a soulager lenn moo la mënoon tey au moins mu am lu dal ci yow mooy ñu ne la kat jàpp nañu ki nga xam ne moo buum sa doom wala moo rey sa ki nga xam ne sa mbokk la jàpp nañ ko mu ngi nii yoon def na li nga xam ne moo nekk liggéeyam. mais tey au moment bi ñu leen di fàttali li nga xam ne ñoom au moins seen yaram na seen xol am na tuuti ci loo xam ne sax ngeen bu fekkee mënuñoo fàtte mais ñu ngi doon nangu que ñàkk nañu xëy na am na ñoo xam ne am nañ fu leen féete woon mais tey lan lañ leen koy fàttali mooy ñi nga xam ni seen i njaboot lañ faatu nañu tey dañuy naan dañuy voté une loi d'amnistie pour wax que ni kenn du xam kan moo rey ñi nga xam ne moo nekk seen njaboot. et que tey aussi sama xel dem na ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir kaso bi wax en commission j'ai fait dix mois à la prison de C'est sama pire ennemi yéenewuma ko li nga xam ne moo nekk kaso mais on a entendu ici des accusations très graves madame la ministre je me rappelle de votre discours euh, ci fi nga xam ne moo nekk RFI ou France 24 je me rappelle des déclarations yi nga xam ni pour wax que ni y a des gens yoo xam am na lu ñu leen jiiñ luñ lay toppee loo xam ni askanu Sénégal sax bi ñu ko déggee tiit nañu maintenant on va venir nous dire que ni soit ñooñu liñ leen doon wax yépp dara da cee nekkul dara da cee amul et dañuy effacer lépp pour bu ko defee ñu mën a dem moi je suis du parti démocratique sénégalais man Serigne Abo Mbacké Thiam jàpp naa ni sama biir bàmmeel man rek maa fay nekk kenn du ma fa fekk ak samay jëf te li ma gëm lay wax lu ma gëmul duma ko wax et tey bu ñu taxawee ñu ne nañu nous nañu nous nañu fàtte alors que la justice n'a pas été rendue alors que xamuñu kan moo def ak kan moo deful madame la ministre posé naa la ko nee naa la qu'est-ce qui justifie l'urgence de cette loi parce que l'urgence est de droit l'urgence est prévue par les textes mais je ne comprends pas actuellement ban urgence moo am bu war a tax ñu andi cette loi d'amnésie def ko li urgence madame la ministre tey bu ma sañoon kenn dootu des ci et que je suis pour ce que tey ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir kaso yi que ni dañ leen a bëgg a génnee parce que man am na ci ñoo xam ne jàpp naa ni xëy na ñii du ma ne ñëpp a def mais am na ci ñoo xam ne ci manifestation politique mën nañ la cee jàpp te defuñu parce que man victime laa moo tax ma xam li nekkul ci loolu et que tey ñooñu war nañ leen a génnee parce que famille ak njaboot sa njaboot nekk ci kaso li ngay di am na mais aussi est-ce qu'il y a pas d'autre voie et moyen yoo xam ne mën nañ ko utiliser pour génnee nit yooyu noonu mais aussi pour soulager ñi nga xam ni ñoom aussi jàpp nañ ni tey war nañ leen mën a rendre justice muy li nga xam ne moo nekk lay victimes madame la ministre moi je ki nga xam ne moo nekk Karim Meïssa Wade quand on lui a parlé d'une loi d'amnistie ne ko pour ñu amnistier la te il ne l'a jamais demandé Karim a dit que ni bugguma amnistie tey bugguma amnistie ëllëg dama bëgg ñu attewaat nag ñu setal ma pour wane que ne li nga xam ni dama dañ ma koy jiiñ defuma ko c'est cette fierté bi ma am ci Karim Meïssa Wade fierté boobu laa am ci le président Abdoulaye Wade fierté bobu la am ci les militants du PDS fierté bobu la, am ci PDS que même bu féké d'accord nga ak ñoom ñàkk d'accord ak ñom seen position seen xalaat ak fiñu jëm ñom dañu koy wax amna ay questions yi ma la posé ni vous avez parlé de droit civique et politique et amna ko ko wax mars 2021 ba léegi gisaguma ku ñu atté par rapport ku perte droit civique et politique et que lepp lo xamné ne ngeen ko ci ma def pour moi cette loi là tay fiñu ñu fi di wax c'est tay man ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen njaboot tey am nañu leen métti et que ça ne devait pas faire l'objet d'un débat et que madame la ministre maa ngi leen di ñaanal li nga xam ne moo loi bi merci xoolaat ko parce que c'est pas quelque chose boo xam ne le peuple sénégalais d'accord na ci vous avez la parole suivi de Moussa Diakhaté